bonjour asalaamaaleykum chers internautes daleen ak jàmm seen chaîne Dakar People. nekk actualité yu gën a fës moo di kii di Iran Ndao visé par une plainte pour escroquerie. comme keroog ni ñu ko waxee suñu dernière vidéo bi ni Iran Ndao dañ ko convoqué woon police centrale te xamuñu woon lan moo ko waral tey libération moom moo joxe xibaar yooyu noonu ñu Iran Ndao dañ ko porte plainte pour escroquerie déposée par un particulier du plaignant renseigne qu'il avait sollicité Iran Ndao pour l'aider mobiliser des fonds afin qu'il puisse payer ses frais médicaux. ki nga xamante ne moom mooy plaignant bi dañoo renseigné ci moom nee na Iran Ndao dafa lekk xaalis bi bi mu mobilisé woon pour fay ay frais médicaux après mu teg ci ne le procureur aurait fait mais basse sur la somme de plusieurs millions récoltés nee na ay millions yu bëri yoo xamante ne moom lañu récolté woon ci fonds yi moom la jël lekk ko kii di Iran Ndao la même source ajoute que la sûreté urbaine qui mène l'enquête agit en faveur d'un soit transmis du parquet.